ak Dakarnet dara du leen rëcc ci réew mi les minutes de l'info ngeen ci ànd ak Ouzin ñaari mbir la ñuy waxtaanee dañu koy ubbee ki li nga xamante ni am moom mooy mbiri Adamo Queen Biz bay Diagne li tax ma wax ko xam ngeen di Queen Biz defoon na ay photo ay shooting ay photo yoo xamante ni doon nag yëngal internet bi mu ci doon ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Diagne photo ba nag jur coow ba sax Adamo daal di def vidéo yàq lu mel ni xëy Queen Biz lu ne mu daal di koy wax ci ah, Queen Biz traité ko de tous les noms waaye nag bàyyiwul Queen Biz dafa jugee dal ci ki nga xamante ni moom mooy mbay Mbaye Diagne l'international ni Mbaye Diagne Aliou Cissé dina la yéexawoo waaye sax nag des na tuuti club bu naar yi ñoo lay soxla boo bàyyul kiin biis kiin biis moo la desee xas ko ba mu ràpp ndekete Adamo yëgul lu xew ëppalam moo ko dugal ci wax jooju Adamo ndekete ki nga xamante ni am moom mooy kiin biis da doon waajal ab clip clip ba nag mu waroon cee ànd ak Mbaye Diagne clip ba nag ba mu génnee ca bëccëg ga la ki nga xamante ni moom mooy Adamo profité naan xamoon naa ni clip bu ñuy préparé ndekete yow ay waxi kese la xamul woon lu xew ëppal moo ko dugal ci wax jooju waaye Mbaye Diagne ni wax ji du bàyyi mu sedd ci ab commentaire Instagram eh, jamalo ko ci ki nga xamante ni eh, moom mooy Adamo ni ko Adamo xoolaatal li ngay def Adamo man duma ñi ngay jàpp bëgg yàq seen àddina giñ naa ko ci sama eh, turu yaay man duma bàyyi boo ma bàyyiwul di nga sa bopp bu dee man maa la desee xoolaatal li ngay def ndax man boo ma xamul danga may laaj Cheikh wala nga laaj ma waa Torino bis boo bàyyiwul di wax ci man wala bëgg a sama image dinañ ko defante ba mu saf ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye xam ngeen ni mi ngi doon waajal combat bi nga xamante moom ak Bombardier ñu daal di koy euh, reporter moom Balla Gaye ba sax ñu ngi doon dégg ci xibaar ñi ngi waaj a jàpp beneen date ngir mu war koo ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Bombardier Balla Gaye démb ci la ñu wax ci xibaar que ni moom dañu ko entré hôpital ñenn ñi jort ni Covid bi moom moo fa jaar ñenn ñi ne tamit jàpp ni du Covid bi waaye jamono jii ñuy wax ak yéen Balla Gaye mi ngi hôpital lan moo ko fa yóbbu ñu koy ñaanal wér wér-gu-yaram ak tan waaye lu si mënti am dinañ topp xibaar boobu ba xam euh, réellement Balla Gaye lan moo ko yóbbu hôpital wéy leen di abonné seen d'information bi di Dakar Net jaara du leen